tey euh, dañu ñëwoon fii ci ministère de l'artisanat euh, euh, war a def audience ak ministre bi Mountaga Diaw ñu waroon a waxtaanee le programme de l'UNAPAS parce que UNAPAS organisation bi mu defar pour l'artisanat pour développer en tout cas les professionnels de l'automobile li ko tàmbalee ci formalisation bi formation bi modernisation des garages Euh, ba ci la santé ki est le mutuelle de santé et également le syndicat de SEMPAM tout un package boo xamante ni UNAPAS liggéey na ci pour les artisans euh, moom lañ ñëwoon tey jébbal si ko ministre bi moom vraiment ñu koy euh, remercier ci disponibilité am ak vraiment mécanisme bu mettre en place pour pouvoir faire des audiences de manière très très très efficace bi ñu ñëwee tamit dalal nañu Euh, ñu waxtaan ci euh, sujet yu bëri euh, bàyyil nañ ko aussi sunu sunu manuel de procédure bi nga xam moom la ñuy utiliser pour vraiment liggéey ci UNAPAS wax nañ ko aussi sunu besoin par rapport ak suuf yi nga xam soxla nañ ko notamment le Zampa nga xam ne dañ ko aménager pour les professionnels de l'automobile am nañ ci sunu programme am ci xalaat boo xamante ne jox nañ ko ko pour euh, vraiment mu man koo jàllale ci euh, euh, premier ministre bi ñu koy saluer di ko nuyu de passage ak di ko jàllal ci son excellence le président de la république muy Bassirou Diakhar Diomaye Faye audience bi nag am nañ ci satisfaction bu baax dans la mesure où moom ci boppam déglu nañu jox ñu temps bi war yëpp vraiment te suñu document tamit teg na ko fi te nee na vraiment yàkkamti na ko yërndu parce que niñ ko ko présenté ak niñ ci waxee moom vraiment xelam dal na gis na ni modèle UNAPAS bi modèle la boo xamante ni euh, mën nañ ci sukkandiku ngir mën a développer bu baax a baax euh, secteur bi ñu nekk muy euh, la mécanique automobile ak métier yu ko wër yëpp ak vraiment la vulgarisation ci wàllu pneumatique ak recyclage Euh, euh, yëpp évoqué nañ ko fi am nañ yaakaar ni dina egg fu mu war a egg euh, ci taabalu conseil des ministres pour ñu mën cee waxtaanee pour vraiment réaliser ko ci nu mu gën a gaawee. posé nañ nag ay question par rapport ak UNAPAS wax nañ ko réalisation yi ñu def programme yi ñu teg ak organisme internationaux yi nga xamante ni ñëw nañ wuy suñu ci programme bi nga xam ne. Euh, vraiment programme bu fiable la boo xam mën nañ ko yóbbu fu ne ci àdduna bi ndax ñi ko xalaat dañoo nekk ay professeurs yu nekk biir UNAPAS di ay ay ay experts en mécanique ba pare ànd ko ak wax dëgg yàlla garage yi nga xamante ni ñooy garage yu informel yi ñu ci biir plateforme bi ñuy tuddee échange technique ñu xel ci euh, xel li ci xalaat ci ay xalaat yu am solo yoo xam ni dinañu mën a boole ñun ñëpp développer Euh, vraiment participer bu baax ci l'emploi des jeunes et la formation des jeunes et des femmes loolu moo nekkoon bisu tey bi ñu am ci vraiment satisfaction bu baax ndax euh, euh, différence bi wane nañ ko ci wàllu accueil bi ak déglu bi ñu déglu am nañ yaakaar nag que loolu dina jur njariñ mu bañ a nekk loo xam ab daje rek lay nekk mais ginnaaw daje bi ak échange bi mu jur ay njariñ yu am solo ci wàllu artisanat jërë ngeen jëf